ñaar waxtaan nañu euh, conseiller na ko moom euh, Alassane Ouattara euh, ki nga xamante ni moom moo di le président Bassirou Diomaye Faye tamit gis nañu solo si nga xamante ni jox na ko conseil yooyu nga xamante ni son homologue ivoirien jox na ko ko noo ko jàggatee cette visite. waaw bi mën nañ cee jàngal te ñaari point comme li nga wax am na ñoo xam ne ñu ngi koy traité ne ak le fait que mu dem le président Adou mooy Alassane Dramane Ouattara Adou lañ koy. Adou lañ wax Côte d'Ivoire lañ koy wax. Mm-hmm. le fait ko ci ci aéroport ba vice président bi moo dem jëli ko. Mhm. am na ñu koy interpréter maam ci côté boo xam ne côté bu négatif parce que homologue moo war ñëw moo ko war a accueillir. Mhm, mhm. am na ñu ko interpréter ku ko interpréter noonu aussi tamit da nga koy nangul. parce que sa nawle président bu déplacé rawatina ci Union africaine. surtout président boo xam ne adduna bi yëpp ko teg bët. Ah, mu nekk référence aussi sur le plan démocratique parce que lu ñu ko élire ci démocratie yàlla dimbale nga gagné gagné boo xam ne amul ku ko contesté union européenne nangu na ko CEDEAO nangu na ko union africaine nangu na ko société civile nangu ko américains yi seen observateur yi observateur adduna bi yëpp nangu ko. mais ñëpp yi nekkoon fi amul kenn ku contesté victoire boobu. Mm. aussi mu nekk victoire boo xam ne adduna bi yëpp ko rafetlu kon kooku suy ñëw ci yow nga seet ne kooku ñu mais réew démocrate moo la fekk si. d'une mm. part doo ko rafetlu. Mm-hmm. mais aussi tamit dina euh, soo ko indi baaw seeta tamit mooy lu may wax naan gis nga jomaay euh, mm. tey yàlla da koo maam yàlla da koo damay wax ne maam li muy def nii ak ku ko accueillir ak ku ko accueillir moom am na benn empreinte ci Afrique ba pare. kon CEDEAO gën jëm nag tamit des fois tamit géopolitique day am euh, ado tamit des fois man na mën na siisu goo xam ne siisu boo xam ne doo ko mën a xàmmee mu nekk siisu démocratique. na ah jomaay bu ñëwee ma dem jëli ko sax maa ngi maam maa ngi war a ne man ak moom ñoo tolloo maa ko mag ci at. maa ko jiitu ci président mais du ci dara. aussi nga fàttali benn affaire euh, bu ñuy xóotal xalaat yi rek bul fàttee ne Pastef bañ ko tasee. Euh, procès bi ñu yóbboon CEDEAO da ngeen di fàtte loolu. ba demoon nañ fi procès bu CEDEAO. dañ koo dëggal. dañ koo dëggal ka doon ka doon ka doon àttee kan la. Mm-hmm. Mm-hmm. juge ba. waaw la. te bul fàttee ne Macky Sall dafa tukki woon dem gisi Macron. Ah. retour mu jaar ci ado. Mm-hmm. ñu teg ci ñetti fan ñeenti fan procès ba am. waaw ñun ñëpp di ñaaw njort. parce que bañ ne ba ci procès ba dañoo wax ne juge bi kat sud africain kii la. Ivoirien la gars yi ne ah kon de yàqu nañ. Ah. ak Alassane Ouattara. ñoom presque mën nañu wax ne ay préfet. Macron lañ. te Macky ba muy dem ci protocole bi jaaroon Côte d'Ivoire bokk ci. Mhm. keroog ban jàppee procès bi ci diggante wa ci la jaar Côte d'Ivoire lan moo tax mu jaar Côte d'Ivoire yàlla mhm. mhm. ba léegi mu ngi jàpp loolu. yàlla moo xam mais soo xoolee nag ci côté beneen côté bi mooy dem gi mu fa dem il faut que nga jàpp man dama jàpp jomaay euh, loolu moo nekk rôle parce que Pastef lan mooy définition Pastef. Mhm. soo dee nga xool définition Pastef ñoom dañuy wax ne. maam parti maam patriote africaine maam parti patriote maam patriote africaine. Mhm. du Sénégal travail maam pour le travail éthique. et euh, la fraternité kon ñoom bu nee na neexee na parti africaine la gannaaw ba nga faloo. kon léegi nekkutoo Sénégal. Hmm. donte na Sénégal lañ la fatoo. Hmm. mais parti africaine nga e maam du Sénégal. Hmm. kon parti Afrique ba am parti benn parti boo xam ne biir Sénégal nekk mais da nga taxaw jëmmal pour Afrique. mais ci biir jëmmal Afrique boobu loo wax maay da nga wax ne ci liggéey. indi éthique ak fraternité. dañoo wax ne sëñ Basir lu muy def diplomatie la lan mooy diplomatie mooy liggéey yaa ngi dégg mooy xaw ma noo ko mën a définir éthique ak maam lu ñuy waxee éthique xaw ma ci olof. jikko maam bu mën war na ñoom jikko bu ñu leen falee dem toog waxtaan ak jaami ne ñoom fën leen jëmee Afrique mm-hmm. parce que ñoom mm-hmm. li ñuy dox ñi ci fraternité la waaw ci mbokkoo mm-hmm. te lu ñuy wax sax mooy ñoom li ñuy njëkk def mooy diplomatie de de voisinage lañuy la ñuy jëmmal ah te ñoom te loolu la ñu woote kon ñoom suñu leen gisee ñu dem ci leneen lu dul loolu dañuy wax ne dañoo ci Afrique yëpp. tey boo seetloo àdduna bi yëpp rafetlu surtout Afrique. Mmh. ñëpp gis seen bopp ci ñoom. Euh, ci gis ko ci Ousmane Sonko gis ko ci président Diomaye. Mmh. démb ba mu demee Côte d'Ivoire mmh. la une Côte d'Ivoire mu dugg seen à une journaux yi. parce boo seetee plus de neuf journaux le mandat. Fraternité matin ah Soir info le matin Abidjan 24 le nouveau réveil le maanaam le patriote l' inter ah l' essor du nord et du sud info l'intelligence ñëpp seen à la une journaux yëpp ci Bachir lañ ko def soo demee lire seen titre yëpp à une laa wax ñëpp ci moom lañ ko def maam kontaan gi am ci euh, ci gën a parce que moom moo nekk ndaw mais beneen média boo ci waxee mooy lu imaam wax mais dañ koy xam nga nit ku nekk da koy nangul ngàddam alsaan ado ku xool alsaan Dramane Ouattara ku xool xam na mag la soo seetloo sax damay wax ne est moom mën naa dem ci avion bi ñëwaat defaat revue des troupes. Mhm. Ah duggaat ci oto bi demaat fële bëgg mais loolu. est-ce que santé santé aussi tamit war na ko may. Mhm. Mhm. nañu rafet njot rek na santé waru ko may. ñaareel bi mooy. Euh, santé bon ma ma wax ci côté santé bi quoi. Mm-hmm. est-ce que santé bi may na ko loolu. Mm-hmm. Euh, man kay jàpp ne rafet jot rek ne santé may loolu mais loo ci gisaat mooy euh, ba mu génnee tey ci aéroport bi ñëw population bi accueillir bi ñu da ngay xam ne ñoom dañoo am fierté. rawatina population sénégalaise bi nekk foofu dañoo bëgg. foofu da ngay gis amul fii laa far amul lii mais dañuy xam ne tey président bi ñu fal. Mm-hmm. àddina yëpp koy dañ koy bëggee. mais rawatina yow même nekk sa président. vraiment visite bi daal yow soo ci bëggee wax daal dans l'ensemble da benn fruit. Mhm. parce que tey liiree seen journaux yi nga gis à une des journaux ivoiriens da ngay am mbégte yow boo nekkee sénégalais da xam ne sa président femme dem jox nañ ko cëram jox nañ ko gëddam te luy dëggal loolu aussi tamit ñoom maam Bachir Bachir maam euh, président Bachir ko am fayda la ci li muy def mhm. amul fenn fu dem naan dafay fanaan mhm. dafay xam ne lan moo ko tax a jug mu dem ci waññeekuwaat sur le coup loolu euh, du fanaan loolu dafa am solo mais nag mën nañu wax ne distance bi la aussi. ah waaw waaw waaw ci def. waaw euh, xam nga 45 minutes wala une heure de temps mais xam nga tamit aussi CEDEAO bi fu mu dem mën naa ñàkk bañ a fanaan. waaw ah, ba ci Afrique centrale bi sax maam mën nga dem dox lu ngay dox ci farata yëpp après ñëwaat. yaa ngi dégg ah. mais man li may gën a rafetlu ci ci ma koy def observation depuis seen déplacement te ñun ñi waxagun ci ba léegi mooy effacé gi ñu seen soxna yi ci protocole bi. loolu vraiment dafa nekk mbir moo xam ne depuis bu léegi maa ngi observé. yàlla na continuer loolu même man non man loolu man dama ci am. waaw ah, moom kese ngay gis euh, ay soxnaam dañ leen effacé depuis. Mm-hmm. keroog prestation de serment vraiment loolu yàlla na yàlla a def taw ba affaire yi gën a jëmmawu daal euh, France gi waaw <laughs> France bi waaw euh, France bi xam nga nga xam nga ah? waaw waaw xam nga France bi France bi man damay wax ne eh, eh, ñoom eh, ci rupture ba léegi il faut ñu jàngatee ko ñoom rupture bi ñu woote. xam nga tey suñu demee ba suñu président falu Fallou euh, Macky Sall sorti si vous rappelez très bien euh, en 2012 bañ ko falee. France ñu ngi nekkoon ci ay élection presque ñu jëm sax ci deuxième tour wóorutoon sax na si Nicolas Sarkozy day gagné mais Macky Sall dafa dem dem seeti ko te waxtoon moom mooy gagné kon kii bu ñëwee moom moom faloo ba léegi li gën a yéeme ci affaire yi mooy Macron bind na leen pour ñu ñëw mais loolu ça montre que man damay wax ne le fait que muy dem tourner ci africains yi dem di leen seeti c'est un message fort pour ñu xam ne rupture am na mhm. la amoon lan ne woon newutut ça il faut que ñu jëmmal suñu bopp xam ne suñu développement nekkul ci turu kenn nekkul ci maam ci bindeefu kenn. Mm-hmm. pays amul pays buy développé pays boppam. parce que pays bu nekk François Mitterrand daan na ko wax. Mm-hmm. pays amul xarit intérêt rek la ñu xam. Mm-hmm. kon ñun suñu intérêt mooy lan mooy suñu dëkkandoo yi na rafet ba pare. vraiment loolu dafa nekk loo xam ne ñëpp koy maam fi rafetlu ñàkk dem France bi nag lu leen la ñu yàqal contraire bi sax. wujju français. mooy la pour Macron. maam ñam diriger woon lam la mu bëgg à chaque fois ñu ko fi defar hmm. te man d'une part sax dama cee kontaan xoolal li xew ci Sénégal Macron kenn mus koo dégg mu wax hmm. doomu aadama yi dee fii ci magistère Macky Sall kenn mus koo dégg mu ci benn pipe hmm. mais dama ne kon bu doon intérêt rek moom maam bu doon ne humanisme doomu aadama moo ko ñor rek keroog yooyu ba muy am waroon na ah Macky Sall lii na arrêté. Mhm. gendarmerie nu ñu rey nga dem ba France 24 di ci def ay reportage nga gis moom Al Jazeera àddina bi yëpp di ci def ba léegi may wax ak yow nii mosu ci wax benn mot. Mhm. ñii yàlla dimbale lu imaam wax peuple bi taxaw xeex du lobby mu taxaw. Mhm. fal leen bu ñu amee fayda lu paa yàgg ca am waxoon kon fal faale woo ña fal da ngay fuuy fob ba folleeku te ñi leen fal mooy peuple peuple lañ bëgg. mooy nañu respecté dëggal seen bopp liñ am ñu jëm koo téye. Hmm. gëm ko te dañuy avancé euh, te bañ a ci kenn nag. te gëm na suñ gëmee suñ ba xam nga barki dem barki dem dama gis benn vidéo boobu ndaw moom laay jeexalee. Hmm. benn xale mu ne man dama gëjoo man sept maa ngi nii fayu ma woon impôt. Hmm. maa ngi nii damaa dem fay impôt quarante quarante deux mille. xale lu Saalum Saalum. xale mu ne lan moo tax may fay impôt dama gëm na ñu ñu jiit dañoo jub. dëgg la. message ah. bu fort la message bu fort mu ñu ñu jiite dañoo jub. jub gi ñu jub moo tax man ma dem pour fay. kon ñoom ñu ñu jiite amul waruñoo def droit erreur. Mhm. seen entourage sax waruñoo jël benn fifteen ci xaalis bi. Mhm. parce que Abu Omar ibn Abdul Aziz mais seetal na jabaram. baayam buur la woon ay magam ay buur lañu woon mu am alal keroog ba ko Omar ibn Abdul Aziz takkee ñu nekk ñoom ñaar ñu fal Omar ibn Abdul amirul muminina daf na ko sa alal ji nga am yëpp ak li ba am yëpp dañ koy dugal ci bayti maal mooy trésor public dem nañ ba moo jabar ji bu ñu ko fóotee dañuy dugg ci biir néeg bi tëju seen benn yére boobu mu wow pour ñu mën koo solaat mm-hmm. ndegam alal jooju lañ jël dugalaat ko ci bayti mm-hmm. kon ñii bu leen falee ay ndaw am yaakaar ci moom mm-hmm. te yaakaar leen te ndaw yi ñoo cotisé woon seen xaalis ñu falu dëgg-dëgg war nañoo bàyyi xel ci ndaw yooyu mooy li waa waxoon ne cotisé bu ñuy cotisé da jub am yaakaar ci yéen ne jub moo tax ñuy cotisé dem di fay suñu impôt parce que réew du ko wax fal eh, ka nga gis mu falu rek ne damay dem ci Mahfouz dafa xam ne Mahfouz su ko jàppale rek mu falu waaye ki nga xam ne peuple bi la fal peuple bi fu maam Olof Njaay day wax ne ku la ëbali gët moo lay xool wala moo lay wax fi ngay xool peuple bi daal li lañ wax mooy nañ respecté seen africain yi jox leen seen gëdd respecté leen dimbalante ak ñoom amul sikki na suñ ko bëggee rek réew mi dana développé d'accord euh, imam euh, am na solo trop euh, mmh. Bécaye imam gis nañu Ousmane Sonko tamit ñu ne dafay dem ci maanaam pays ñuy wax alliance des états sahéliens mmh. muy AES muy muy euh, Burkina Faso Niger euh, Guinée Conakry ak Mali mu war fa dem foofu yëpp nag daanaka euh, réew yoo xam ne si ni ay militaires wala ay hommes de tenue ñoom ñoo nekk ci.